Merci de nous accueillir chez vous comme chaque samedi ici sur la 2STV. Du bonheur à distiller puis du bonheur à partager le samedi soir sur le plateau de Vous et Nous. mooy xool li nga xamante ni moom la Sénégalais bëgg namu ko ci ñun ñu fexe koo xam ñu acte ci ñun ñu fexe leen ko proposé. waroo xeeb doomu aadama ci dara. ndax yàllaa ñu sàkk ñu ñëpp balaa nga ci xam dara ba su bu njëkk jigéen dañ ko daan fekk ci peggu ndeyam ak peggu baayam ni ko olof di waxee.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 wàcc sam sama too ma bettu way wi la ilaha illallah am naa njaagoy waali ku am njaago man waali